sa premier jour biir rëbës nu mu demee. waaw jaaxle woon naa trop jaaxle woon naa trop parce que bi ma ñëwee li mu gis foofu noonu doy na waar. waaw uh-huh. ah, parce que bi ma duggee ci néeg boobu nekk néeg boo xamante ni taxu ko rëy lool taxu ko rëy lool taxu ko yaatu lool. Uh-huh. la fa nekk ci ay doomu aadama bon mënuloo xayma ñaata la. Uh-huh. donc euh, déjà loolu rek moom njëkkoon a jaaxal ci seen nekkin foofu. maanaam. nañ toll ak bërëb bi nañ toll xam nga toujours donc nañ war a tëddee nañ war a nekkee xam nga te lépp ci biir fas bi dañ koy def. ci benn bërëb boobu noonu moo taxoon daal. Mhm. est-ce que fii fi mën a continuer nekk. dégg naa soo ñëwee chaque premier jour chef de chambre bi dalay napp pour bëgg la jabaroo loolu est-ce am na. non loolu nag boo déggee ñu di ko wax. Mhm. du du ci am. Mhm. te du. yaakaar naa ne jamono ji ñu nekk nii loolu moo fay amal léegi bu fekkee am na fa tamit man teguma ci sama bët gisuma ko dinaay dégg daal ñuy wax léeg-léeg ñu joxoñ sax ay nit yoo xamante ni dañaan dañuy joxe seen bopp maanaam ay góor yoo xamante fa lañ nekk voilà man nag fa ma xamante ne fa laa nekkoon loolu moom amu fa moom parce que ay nit ñu mag ay mag la ñoo fa nekkoon donc loolu amu paquetage bi waaw paquetage bi moom paquetage bi daal waaw man waaw man dund naa parce que boo njëkkee ñëw noonu foofu ngay foofu ngay tëdd di paquetage waaw ci paquetage muy tëdd mënoo ñëw rek xam nga à moins que nga ñëw fekk fa koo xamante ni yow xam nga ko ci biti wala xamante woon ngeen ci biti nga nekk magam wala nga nekk rakam mu ñëw mu gis la rek am sa yërmande daal di lay jàppale génn fi nga xamante ni moom fa lañ ko réservé loolu mu nekkoon place am daal la koy jox nga nekk nekk ni bu mu fa en attendant day am sa place parce que daf ci am ordre ordre numérique boo xamante ni moom lay chef de chambre bi appliqué maanaam boo ñëwee da ngay topp ci rang bi rek. Mhm. waaw fu place amee maanaam chaque jour ngay gis ku libéré. Mhm. chaque jour ngay gis ay libération. Mhm. ku génn rek bu fekkee da nga amoon place dañuy jël sa place jox ko ka nga xamante ni xam nga moo waroon na moo waroon na jël place boobu maanaam ka fa jiitu maanaam bu fekkee un la deux trois quatre cinq léegi dañ koy def par ordre numérique maanaam ku man mii maa njëkk a ñëw donc bu place libéré man man maay jël place boobu. leen rattrapé ci man bu beneen place bi bëri foofu tamit yow drogue bi nga doon utiliser bi nga doon euh, trafiqué ban jàpp la euh, bi nga duggee ci biir est-ce que daan nga gisaat drogue parce que waaw waaw waaw da ko doon jëfandikoo est-ce que doon nga tox yàmbaa ji ci biir nag moom man dama ci da nga daan tox bi nga duggee ci biir soxla nga ko non bi ma duggee ci biir bi ma duggee ci biir naa boo xam ne dama ne woon bu ma génnee ci biti bu ma gisee bu koy jaay sax dama lay boole ji mooy mënit bi nga duggee ci biir. déggoo déggoo ma de. waaw nga ni. xam nga rek may laaj ndax bi ma duggee ci biir maa ngi ko doon gis foofu. waaw ba pare laaj ma ndax maa ngi ko doon jëfandikoo. waaw pour wax la ne nii bi ma amee tolof tolof boobu noonu. regret bi ma am maanaam rëcc bi ma am. dem na ba jural ma ba nga xamante ni. dama ne bu ma génnee ci bisi bu ma gisee kuy tux wala nga di ko jaay sam damay dem boole ñu la ñu jàpp la. kon yow kaso defar naa la. non def loolu def faa def man lu bari dafa am dafa ma defar na la ma jàngal daal kaso. waaw dafa am lu dama xamul woon lan mooy liberté. Mhm. xaw ma ko woon mais biñ ma ci jàppee dugal ma ci kaso bi tëj ma ci doo xam lan mooy liberté. kon rëccu nga. bu baax a baax di ko nee naa bu ma génnoon tey jii mooy bi ma génnee nee naa bu zone dama daan toog ci biir kaso di ko wax di ko wax. ñi nga xamante ni ñoo fa nekk di trafic nga xam ne ñoom loolu rek mooy seen àdduna dañ ma yow da nga dof dinañ la rey boo génne boo koo boole dina la rey ma ne ko bu yeboo mais bu ma génnee coono yi ma teg bi ma nekkee nii. Mhm. parce ko benn yoon deux ans yi nga ne ci biir. xalaatuma ko nekkatul woon sax sama xel. waaw ah, foo nga doxee bàyyi ko. nekkatul woon sax sama xel xalaatuma ko. Mhm. Mhm. xalaatuma ko mais lan ko fay dugal. li ko fay dugal du lenn bon xam nga foofu gars yi fa nekk pratiquement am na ñoo xamante ni dañuy am seen stock yoo xamante ni bi ñu leen jàppee des na denc nañ ko dañuy am keneen koo xamante ni moo leen koy gérer ci biti xam nga léeg dañ koy soxla ci biir dañ ko soxlaa ci biir dañuy <coughs> gis garde boo xamante nii rek bon xam nañ ko ci biir pénitence bi su ko defee ñu wax ak moom garde boobu nag ak complicité garde boobu ci lay affaire yooyu di di di nekkee. mais des du doon garde bi de. ah des fois du doon garde bi des fois bon di gis ay rentrants yoo xam ne dañuy foofu àndaale ko mais la plupart ñooñu du ñu rëcc dañ di jàpp waaw la plupart dañ leen di jàpp waaw parce que bu ñu ñëwee ci euh, service bi ñuy wax euh, nu mu Euh, am na benn kii bu nekk foofu boo xam ne moom lu dugg si foofu moom moo koy contrôlé. ñoom ñoo koy contrôlé xam nga donc foofu rarement ngay dugal foofu affaire mooy échappé rarement. rarement. Mm-hmm. la plupart yi daal mm-hmm. ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko fi dugal. c'est ça. naa premier jour moom soo ñëwee dañ leen di simmi. soo jegee tribunal loolu moom laa gën a ñaawlu ci ci ci li ma gis foofu li ma gën a ñaawlu loolu ci la bokk parce que bu dul dara tamit nit ki am na dignité humaine daf ko am loo xamante ni moom moo ko moom mm-hmm. mooy dignité mm-hmm. loo xamante ni moom rek moo ko moom waaw dara waralul boo juddoo rek xam nga automatiquement xam nga ñu defar la bu ñu defee yàq dañuy jël muur la te pourtant xale bu ndaw nga ci ne pas conscient voilà mais bu lu tax boo ñëwee foofu ñu jël sumi la def la taatu ne ni la sa ndey juree boo xam nga loolu dafa rafetul ci publiquement ñëpp di la gis rafetul ñëpp ñëpp ñëpp lay gis ñi nga ñu nga ñu nga ñu nga andiloo ndoo ñu ñi nga ñëwandoo yëpp ci kii bi ñëpp lay gis mhm. amul demal nag téere yi dindi yëpp loolu rafetul nit ki mën nañ ko summi xam nga ba mu des sax caleçon ñu bàyyi la sax sax caleçon nga sax caleçon mais lépp ah, la rek la. mais nit ki mun nga ko def fouille corporelle boo xamante nga xam ni ndax dara mu ngi ci moom dara nekkul ci moom. dañ sa yaay juree woon dégg loolu ma la wax naa leen lii sax bu juddu dinañ ko sàngal mais